jaam yim gërëm jaam yim toppul dara jaam yim toppul dara jaam yi yërmandeem jiitu ci ñoom mbugalam jaam yi yërmandeem jiitu ci ñoom mbugalam yàlla ñu yàlla méngoo ci saayir ak ci baatin yàlla ñu yàlla méngoo ci saayir méngoo ñu ci baatin yaa rabbi yàlla ñu yàlla fegal bépp musiba ak bépp balaa yàlla yàlla fegal bépp musiba ak bépp balaa yaa rabbi yàlla ak borom xay yal nañu yàlla xiir ci lam bëgg ak ci lam gërëm. yal nañu yàlla xiir ci lim bëgg. xiir ñu ci lam gërëm yaa rabbi. yal na yàlla jox ñëpp seen i càkkutéef ci saayir ak ci baatin. yal na yàlla jox ñëpp seen i càkkutéef ci saayir ak baatin yaa rabbi. yàlla baal ñu ñun ñëpp. yal nañu yàlla baal ñun ñëpp. baal suñuy wàjjur ñun ñëpp. baal suñuy wàjjur ñun ñëpp. baal suñuy mbokk yëpp. baal suñuy mbokk ñun ñëpp. baal suñuy xarit. baal suñuy xarit. ak suñuy taalibe ak suñuy taalibe ak képp ku ñuy dénk ñaan ak képp ku ñu dénk ñaan yaa rabbi képp ku am ak ñun kolere ak képp ko xam ak ñun kollëre yal na ko yàlla jëriñ ci saayir ak ci baatin yal na ko yàlla jëriñ ci saayir jëriñ ko ci baatin yaa rabbi ci àddina ak ci àllaaxira ci àddina ak ci àllaaxira yal ñu yàlla wattu ci gëm yàlla yal ñu yàlla wattu ci gëm yàlla wattu ci suñuy doom wattu ci suñuy doom ba pencam yàlla ba pencam yàlla yaa rabbi yal ci jaam yem sopp yal ñu yàlla boole ci jaamam yem sopp ñem nangul ñam nangul. yàlla ñu yàlla jubal. yàlla ñu yàlla jubal yaa rabbi. kër ñu ci lam bëgg ak lam gërëm. kër ñu ci la bëgg ak lam gërëm yaa rabbi. yàlla ñu yàlla may gëm yàlla gu mat. yàlla nañu yàlla may gëm yàlla gu mat. taqee ñu ci topp yàlla gu rafet gu dëppoog sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa te nangul ñu ko. te nangul ñu ko yaa te faat ñi ci bés ba gën ci suñuy bés. te faat ñu ci bés bi gën ci suñuy bés. gërëm ñu. gërëm ñu. yóbbu ñu aljanna ci ak soppeem ya. yóbbu ñu ci kër ak soppeem ga. ñu dëkkaale yonent yàlla Muhammad ak yonent yi ak saabaam yi. ñu dëkkaale yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yonent yi ak saaba yi. boole ñu ci soppe yàlla yi gisee ak yàlla. boole ñu ci soppe yàlla yi gisee ak yàlla. ñi nga xam ne lépp luñ mébét yàlla dana leen ko jox. nga xam ne ñoom lépp luñ mibit yàlla dana leen jox loola. képp ku fi dikkoon soxla yàlla na ko yàlla faj li ci dun ma yàlla. képp ku fi ñëwoon ak soxla yàlla ko yàlla faj lépp lu ci duhut mooy yàlla. ku fi am ku am soxla ku mu mën doon yàlla na yàlla faj soxla sax. ku fi am ku am soxla lu mu mën a doon yàlla ko yàlla faj. ku fi amoon ku ràgg yàlla ko yàlla saafara. ku fi amoon ku ràgg yàlla ko yàlla saafara ci kanam ak wét. ku fi ràgg yàlla na ko yàlla saafara. ku fi regg yàlla la yàlla saafara. ku fi am bakkaar yàlla na ko yàlla baax. ku fi am bakkaar yàlla ko yàlla far. mbooloo mi yàlla bu ci yàlla def cëtëb safara. mbooloo mi yàlla bu ci yàlla def mukk cëtëb safara yaa rabbi. ñëpp yàlla na leen yàlla dugal aljanaam ji. mbooloo mi lépp yàlla leen yàlla dugal aljanna. barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. barke Seydina Abubakar Sadiq. barke Seydina Abubakar Sadiq. Omar ibn Khattab. عمر بن الخطاب عثمان بن عفان عثمان بن عفان علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب طلحة طلحة زبير زبير سعد سعد سعيد سعيد عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة بن الجراح أبو Yaasir ibnu Jaraa. barkeem ñooñ Badar. barkeem ñooñ Badar. barkeem ñooñ Uud. barkeem ñooñ Uud. barkeem ñooñ Hudaybiya. barkeem ñooñ Hudaybiya. barkeem ñooñ Laxsaab. barkeem ñooñ Laxsaab. barkeem Fatu Makkata. barkeem Fatu Makkata. barkeem yonent Yàlla Muhammad. barkeem yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. alquran yàlla ko ko wasal ki. alquran yàlla ko ko wasal ak kim ko wasal ci moom ak li tax mu wasal ko ci moom yaa rabbi. yàlla yàlla def alquran. yàlla yàlla def alquran. di aw lay wu ñu ñaal. diw lay ñeexal ñu yaa rabbi yàlla haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan